dara ci ndax waa suñu borom ci boppam amul démb ak tey ak ëllëg yëpp a yemandoo si moom amul maadi ak xaadir ak mustaqbal maanaam amul passé ak présent ak futur kon lépp a yemandoo si moom pour muy wax maanaam ñu ñëw ci alquran te jaam yam koy waxanteel ñëwaguñu du dara lu mën a nekk la li ci gën a gàtt daal bu ñu ne alquran waxi suñu borom la alquran a gën a tedd ci lépp lu ñëw ci kaw suuf lépp lu ñu bind yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ci gën a tedd kaaba gi genn la ci kaw suuf lu am ormal ci l'islam bu jëm ne ci taxsis bi ko suñu borom defal ci al fadlul xusuusi boobu ma doon waxtaane ci ngëneel yi nga xam ne borom faggu ko bu ne xabaatu rabbi wa rasula wal kitab mustaxniyan an al xisaabi bi sawab sëñ tuubaa nee na ëllëg bu ñuy xisaab bu ñuy fayante denc naa yàlla muy sama jëf war rasula denc naa yonente bi salaa sallam muy sama jëf wal kitaab denc naa alquran muy sama jëf bu ko ragee bu ñuy pees jëf yi laay teg ci sama balance yi mustax nee na anil xisaab yi kenn du ma xisaab ak dégloo dégloo lillahi wa rasuli mustax nee na anil xisaab la wax nee na kon ma doyloo leen walis xisaab dafa ne muhammadun junnati anil xisaab gadan wa jannati fi jinaani alwaasici illahi bu ñëli gëna mag ci jëf waxon nañ sank jëf ahlu badrin bu ñu dee tudd nga ne lal benn saaba ci saaba yu tedd yi ñu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ma doon wax mais seen tuuritu ñu fas lañu peeseeg jëfi wàll yu kamaal mu wat ko gaañu tedd ñoo ñee la gënante la ñu def ci xare buñ ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam di badar teg ca bépp xare bu ñu mas a ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kem coono ya ba bi fi sallallahu alayhi wasallam jógee ñu ànd ak sidna Abu Bakrin ba moom ci jógee sidna Omar ba ñu jeex Cheikh Ahmadou Bamba nee na bi may bind xasida bi ñu naan saana ilahi sallallahu alayhi wasallam eh, suñu borom tabaraka wa taala rabbul izzati bind na ne xasida gi taxaw na taxawaayu bépp jihaar bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihaar ak bu bépp beneen jëmm gannaawam bu mu jihaar ngir jëmm yàlla moom xasida boobu bu boolee loolu booleeg ne suñ borom may na ko alquran mallaka ni alquran tam li kam yedun la wax bu ne suñ borom sopp na ma ba ma gënal ko ñëpp mu def rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu sopp ma ba ma gënal ko ñëpp mu def yonent yëpp ñu sopp ma ba ma gënal leen ñëpp mu def malaayika yëpp ñu sopp ma ba ma gënal leen ñëpp mu ne suñu borom dëgal na sallallahu alayhi wa sallama ci sama dund maanaam sama dund mbégum rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa umri ila al jinaani aidu mu ne kon koo xam ne kii li gënoon a màgg si jëf muy jëfi saaba yi mooy ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam di jihaar sa genn xasida taxaw na taxawaayu jihaar yi nga xam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihaar na ko ak yi ñu jihaar gannaawam lépp sa genn xasida taxaw na taxawaayam nga ne suñu borom defal na ma loo xam ne jox na ma mbóot moo xam ne bépp jaam la ump bu dul suñu borom rek wala qaada sirran xaaba an xayrihi al muhi ku dul suñu borom tabaraka wa taala ump na la mu ne sun borom ci kaw bëgg gum ma bëgg mu ko waxe ci jaawartu hubban wala ilaha illa allah akhfa ah, ah, li sirra al masuna allah hubban wala ilaha illa allah neena mom wasana ni fil qidam sun borom daf ko ñangal ci qadim la jitu na la kenn di ñew ndax buñ sété jaam bu imam malik radiallahu anhu neena na jaam lo tedd tedd la nga wax lépp buñ ko fi tegee dañ seet lañ ca mën a jàpp ñu jàpp ko la ca des ñu teg ko fee benn muy njuumte wala muy loo xam ne ba nga koy wax fa nga ko teg doyul bi imam malik waxee loolu jëmm ne يقول من خالفني غلاظ لموضع لأهله الدلاظ القلب مني في اليوم قد سلم من كل ريب وبالرحمن قد علما لا زلت أبغي رضا من قدم الفضل منه الفضائل والتقريب والكرما قد زال ريب فؤادي ومحا درني كبائري قد محاها من محى لمما نومي عبادة رب لا شريك له قلبي دبر آية تورث الحكمة سيعمر Ahmadou بام ba mu sellee ba fa daw ak sell yam suñu dafa ne suñu borom ñoŋal na ma ci lépp lu dul ngërëmam waxul ne ñoŋal na ma ci lépp lu dul noona waxul ne ñoŋal na ma ci seytaane waxul dafa koo ñoŋal ci lépp lu dul ngërëmam kon léppam lu mu def ngërëmal yàlla la bañoon na ba farlu woon na farlu goo xam ne buñ ko dee seet rek ci zahir benn jaam àggu ci moo di jëf yi nun jëf ci aada muy lekk ak naan ak nelaw ak jóg ay jaamu yàlla la woon ci moom lépp lu mu def bu koy wàññi benn mu ne liimaan lislaam lixsaan wala mu wàññee ko juróomi ponk ci lislaam yi wala mu wàññi ko ñi nga xam ne ñoo yor aras si Ahmadu Bamba di jëriñ yi yàlla yi ba jëriñ jaam ñu tedd ñooñu àndoon ak rasul sallallahu alayhi wa ba mu nekk leen benn magasin bi mu nekkee ci géej gi bu ko mësoon a dugal dugal ci ay soldats yoo xam ne seen kilifa ga daf leen a jëñtal ci ñu di ko soxare di ko xiise di ko xër li ñuy tox di ko tuur sàngara lépp lu ñuy def na ku nekk yaa ngi koy seede ca ñi mu nawle seetu lu dul malaayka yi nga xam ne kenn ku ci nekk ci ñooñu ma ngi toog ci sa mbagg di bind la nga jëf mu ne malaayka yooyu li may lor mu ngi leen di lor te muñ nañ ko kon man dama koy muñ ba ñu jógee bis boobale mu demee ba xalaat loolu ba soldaar yi génnee dem ca béréb ya ñu daan defe seen i exercice foofa lañ gisee ahlu badrin bañ ko laajee ndax ahlu badrin ñu ñëwoon pour xamal ñooñu la fitnaal ba ñu bàyyi la malaaka yi malaaka yi wallu waa badar la wala nit ñaa mu ne malaaka yaa ñu ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam àndoon na ci mu ne moo leen jiite booba la ne yastaralil mun naa la daal yi war wali man qaadali maa xaaba an kulli wali kenn mësula dégg ku ahlu badrin dimbalee gannaaw rasulullah sallallahu ku dul sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yemul ci loolu ma ne daañu tedd ñooñu di saxaaba yi ba mu dellu see ba mu seetee suñu borom xamal ko ne bépp jëmm bu yàlla sàkk bi sàkkal na la kër ca àjjana sàkkal la kër ca safara boo jaamoo yàlla ba war a texe bu keroogee bala ngay dugg àjjana daañu la woon sa kër goon ci safara ni la gis nga kat boo sàgganoon tuuti fii nga jëm boo sàggane ba war a dem safara daañu la woon kër goon ci àjjana ni la soo góorgóorloon na gis nga fii nga naroon a jëm kër yooyu suñ borom ñu sàggan ñooñu kër yam leen sàkkaloon ci àjjana sëñ Tuuba jënd ko ci suñ borom ba mu jaar mu defal ko addiyee saxaaba yi nga xam ne muy jaamu yàlla goo xam ne bu def mësu koo ko jiitu teg moo tax mu ne waa adamil ajra bila misani musjilduhu bashirahum misani sun borom dub na ma yool boo xam ne kenn du ko natt kenn du ko woññ kenn du ko mesurer kenn du ko peser yoola boo xam ne day wéy ba abadan féet ba nga xamee ne kuréelam bu tedd boobu sama misaan bi maanaam sama balance yi bégal na leen ba ñu jot bu ma dee placé boobu Cheikh Ahmadou Bamba am na tasawuf ñu xam moo di daraje xutbul xaws mu ngi toll ci wilaaya fi xol toll ci jëm digganteem ak nu bu wata tashriya lu néew fi dox loola tax wali mën ne bidaayatuna lil awliyaa nihayatun nihayatuna lil anbiyaa bidaayatun waaye biir awliyaa yi seen bopp ñaan tam ci laa wax ban ñoo dolliku dara ci yàlla maanaam maqaama yi jeex na amatuñu fu ñuy jéggi jëm fu ñuy rawantee li ma waxoon ci ne ñaari nit mën nañoo bokk benn garaat te rawante lu toll ni diggante asamaan ak suuf loolu mooy li ma waxoon ne sëñ Tuubaa ne na bu leen ma sikk sikk leen lawba bi bu leen ma gërëm gërëm leen lawba bi kon ñi am tam ci ñëpp nekk xutbul xaws mën nañoo tolloo ci fooraay wala mënu waaye mënuñoo tolloo ci riisaay si Ahmadu Bamba bu fekkoon ne àll bu ñuy taxan dañu naan ngaañ ji yépp la for dajale ko lislaam bi ñu ko doon séddoo ci jël yàlla jël yonent bi jël alxuraan kaaba gi di ko siyaare dana naqaree gane personnellement foofu laa ko classé wa yaxluqu maa laa ta'lamuun moo naan moo ci nekk ndax yàlla ndax bopp ngir jëm yàlla yonent bi ak sëriñ mën ngeen maa jégal boo xaw naa fan ñu bàyyi ñemale fii bopp wala